L'air TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه لا يوم الدين أما بعد بك جلدي maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ba tey noo ngi ànd ak yéen di settantal aaya bi suñu boroom di wax ni ne wazaru zahiral ismi wa na bàyyi leen bàkkaar bu feeñ ak bàkkaar bu ndëpp bokk na ci liy gën a fedd li ñu war a moytu bàkkaar yu nëbb yi li suñ borom wax ne waalamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru xam leen ne suñu borom tabaraka wa taala lu nekk ci yéen ci seeni xalaat nekk ci seeni xol nekk ci seeni yene donte feñalu leen ko lépp yàlla xam na ko mu ne koy nak moytu leen ko fahzaruhu moytu leen ko waalamu anna allaha ghafurun halim waye mu tek ci nak lu dalal xel wane na kat ku ca génn da nga fekk na suñu borom kuy dang la da nga fekk na suñu borom ku lewet la maanaam ku dul gaawee mbugalam la bokk na ci bakkaar yu nëbb yooyu yi nga xam ne war nañ ko wattandiku bu baax ñetti bakkaar yu rëy ba ca jëkk mooy ak rëy ak xir ak kiñaan ñett yooyu bokk na ci jàngoro yi gën graw ci yi dal xol wala sax ñoom ñetti bakkar yooyu ñooy cosaani ñaawteef yépp yu doom aadama def benn boo ci seet rek am na bu mu jóge ci benn ci ñett yooyu ndax ñett yooyu bu ci nit ki def rek li muy tekki mooy mankil na ak yi nga xam ne moo war ci moom aqi suñu borom tabaraka wa taala ak aqi boppam ak aqi bindeef ñetti aq yooyu moo seq doom aadama am na lu dox sa digganteeg sa boroom ci àq am na lu dox sa digganteeg sa bopp ci àq am na lu dox sa digganteeg sa moroom yi bindéef ci àq jële nañ ci abi zardin al xifaari radiallahu an mu ne yonente bi waxoon na ko ne ko ittaqillaha xaysuma kunt loolu mooy àq bi dox sa digganteeg sa borom foo toll rek nga ragal suñu borom tabaraka wa taala wattandiku ay tereem di góorgóorlu sa kem katan ci ay ndigalam wa atbii al-hasanata tamxuha lol moy àq bi dox sa ak sa bopp ci le ba def ñaawteef ndax ku def ñaawteef nga ko sa bop nga ko def nga gaaw def lu rafet lu ko far nga gaaw def lu rafet lu ko far ngir bala ñaawteef ye dajalo dila andil mbugal wa khaliqin nas bi khulqin hasan loolu mooy àq bi dox sa digganteeg bindeef yi na nga jikkoo wanteeg nit ñi di jëflante jëflanteeg ñoom ci jikko ju rafet ñett jàngoro yooyu bi ci jëkk mooy ak rëy ak rëy waxoon nañ ne mooy doomu aadama bi jàpp ne dafa am lu nekk ci moom lu nekkul ci ñi ci des gépp gàttañlu goo xam ne am na ci diggante jaam bi ak li ko war suñu digganteek suñu borom tabaraka wa cosaan la mooy ak rëy moo xam kéefër la daa weddi yàlla wala da koy bokkaale wala da koy moy loolu lépp sabab ba ak rëyee koy waral borom bi ne ñi nga xam ne soo leen waxee ne laa ilaha illa yàlla rek mooy buur beeyoo ñu jaamu ko yastakbiruun dañuy rëy rëy lu du ñu nangu lool innahum kaanu isa qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun kon ndeke tawhid ku ko nangul rek limi tekki moy ak reey mo war a borom bi ne innal lasina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ñaga xamne ñaga fa sa borom di malaika yi ñooñu day duñu reey rëylu ci jaamu suñu borom tabaraka taala wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ñom day fuñ tollu ñang koy sabbal fuñu tollu ñagay ngir mom ki ñëkk mooy suñu borom tabaraka wa taala ci bàkkaar boobu muy bàkkaaru rëy mooy iblis borom bi ne wa isqulna lil malaikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min kafirin. ba suñu borom digalee malaayika yi ñu sujoot sujootu teral sujootu maggal ci aadama te fekk iblis ma nga ca seen biir kon ndigal la ca la bokk waaye moom daa bañ lu tax mu wañ was takk bara dafa rëy rëy moo tax ñu ne ko maalaka anta takabbara fiiha fii sañoo fee rëy rëy loola moo ko daal di boole ci ñi weddi ndigalul suñu borom tabaraka wa taala rëy nag day séddalikoo ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy di rëy rëylu diggante jaam bi ak boroomam loolu kéefar gu set wecc lay doon bu boobaa suñu borom joxe na ci misaal ci làmmiñu Namruut mi nga xam ne li ko taxoon a rëy rëy mooy yàlla da koo jox nguur an ataahu llaahu l mulk yàlla da koo jox nguur mu gis boppam ci nguur googu tax mu ne ana uhyi wa umit man lu yàlla man man naa ko damay dundal damay rey wax na ko itam ci làmmiñu firawn mi nga xam ne moom itam daf ne ana rabbukumul aala man may seen borom bi gën a kawe loole lépp li ko waral ci ñoom ñaar muy ak rëy ngir la leen yàlla jox ci cërub àdduna ci nguur ndax gis nga firawna mu ne alaysa li mulku misra xanaa du ma nekk booru misra wa hasil anharu tajri min tahti dex yaa ngi nii di daw ci sama suuf afalaa tubsiroon xanaa gisu leen ko kon kay man waruma topp ab yonent namrod looloo ko teye topp ibrahim alayhi salaam firawna ak rëy moo ko teye topp muusa alayhi salaam xaaju ñaareel bi mooy rëy rëy lu ci kaw yonent yi Firawna wax na ko mook aw nitam di wax ak Muusa ak Haaruun ne anu'minu li basarayni mislina wa qawmuhuma lana abidun mu ndax nun danañ gëm ñaari mbindeef yoo xam ne nit lañ ne nun te seeni bokk nun la ñuy jaamu maanaam nitu Muusa ak Haaruun seen xeet woowu ñu bokkoon ñoom ñëpp Firawna da leen a néewaloon doole ba ci suufam lañ nekkoon di wéy ay ndigalam mu ne comme ci ñooñu lañ bokk nag ñi ngi bokk ci ñoo xam ne nun la ñuy jaamu kon man waruma topp seen i digal a numinu li basarayni mislina wa xawmuhuma lana abidun kon ba tey ak rëy rek ak xeebaate moo tee ñu topp yonent yooyu xurays waxoon dañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne lawla nuzila haasa alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim jii daal am na ku ko gën a mérité kilifa yi nekk ci dëkk bi di magu xurays bari alal bari mbooloo nekk ay mag ñooñu bu alxuraan doon wàcc ci ñoom la war a wàcc gis nga kon ak rëy ay darajey àdduna la ñu xool jàpp na yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mu ab jirim la amul alal amul mbooloo kon alxuraan warta wàcc ci moom wala bu wàccee ci moom it ñoom duñ ko topp moo tax abu jahlin layaloon na seenu ñàkk a topp yonente bi sallallahu alayhi nee na nun ak bani haashim dañoo nekkoon ay wujj mu nekk farasay rihaan dañoo meloon na ñaari fasi course lu ñu def nu def ko at amu fa at am naa bu ñu joxee ñam ñu joxee ñam wasaqu fa saqay naa bu ñu mayee nit ñi ndox ñu may leen ndox nee na ba ñu tolloo képp ñoom nag ñu xëy xëy ne ñoom am na jub yonent min naa nabi mu ne suul leen toppee gëm seen yonent boobu kañ lañ leen di dabati mu nekkoon kon duñ leen mën a dab mukk kon ndekete ak rëy rek mo len jàpp motax borom bi in fi sudurihim illa kibru seen xol ak rëy dong mo ci rek ma hum bi baliqihi te nag lañuy wote ak rëy duñ ko mën dab mukk nak ndax ak yonent mom allahu ya'lamu haythu yajalu risalata yàlla mo xam fi muy def ak yonentam du lo xamne soko beugé rek man ko am ñettel ba rëy rëy lu ci kaw nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ak rëy moy bañ deug bëgg a nappaaje dëgg ak nag di xeeb nit ñi bu dëgg jógee bu la arrangé wul nga ne du fi jibe ak nag xeeb doomu aadama yi loolu mooy ak rëy tooñ nit ñi ak di leen xeeb ak di leen xañ seeni àq lépp sabab ba mi ngi dellu ci rëy delloo dëgg na nga koo jël ngir di wax ne ki koo jottali waru koo loolu yépp sabab ba mooy rëy te nag ku rëy suñu borom tabaraka wa daf koy xagn mu meuna a ci alquran meuna a ci kéemaani borom bi sa asrifu an ayati allasina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq suñ borom nee dana wëlbeuti dana xagn jariñ ci samay aya mo xam ayat kawniya yi la wala ayat quraniya yi ki nga xam ne day reey reey lu ci kaw suuf kooku dutu mën a jariñu ci alquran ñaareelu bakkaar boobu nga xam ne ci bakkaar yu nëbb yi la bokk mooy ak xër xër mooy ak bëgg lool bëgge lool gépp tooñ goo xam ne doomu aadama tooñ na ko boppam ci tàbbi ci lu ñu koy tere wala def ay moy sabab ba mi ngi dellu ci rëy mi ngi dellu ci xër ndax su yamoon ci li ko borom bi tabaaraka wa taala jàpp ndalal kon du tàbbi ci lu xaraam ndax yi dagan mu ëpp fuuf li xaraam waye ka fay bayyi ju dagar yi dem bay tabbi ci haram yi kooku li muy tekki salam ak ëpp doole bi sallallahu alayhi wasallam ne jibril sanni na ci sama xol xamal mané amul ben bakkan buy faatu ludul ne day matal ba la fee joge day matalit aw fanam la fee joge kenn du fi joge ta fekk sa wërsëg joto lepp saw fanitam matut mu ne kon nak ragal len yalla te geen rafetal ni geen di wute doomu aadama bi su amee lu ko wóor ci ne li borom bi tabaraka wa taala dogal ci moom war ko am lu mu néew néew néew doole dana ko am waaye li mu dogalul ci moom kattanam ak i pexe mënu ko may loolu su ko xasee xam xelam day dal ak xëram day néew ndax kat su ëppee dafay dugal nit ki ci mu tàbbi ci ay bakkaar al basri rahimahullah laajoon nañ ko waaw ne ko yow sa dëddu àdduna gi foko jele mune bama xame ne sama wërsëg lima yalla yàlla keneen mënu ko jël kudul man sama xol dafa dal di dal lima yalla yàlla jariyo, ma war ko jariño kenn mënu ko jariño kudul man leg leg ñu togg fi barab aw ñam bo xamne sa wërsëg nga ca sama bala fay andi ba nga koko, ko leg leg sa yow do ko xam keneen mënu ko yow mu ne bi ma xamee ni tam samay jëf li ma war a jëf kenn du ma wuutu di ma ko jëfal moo tax ma soxla def li ma war a def ndax kat bu ma ko deful kenn du ma ko defal ba ma xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi xam sama lépp loolu tax ma am kersa ci mu di ma gis ma koy moy ba ma xamee ne itam dee mi ngi may xaar moo tax ma yittewoo waajal ab yóbbal boo xam ne dinaa ci dajeeg sama borom tabaraka wa taala neena yi dal motax mom mu mel ni mu mel ci deddu aduna wërsegam dana ko faggu waye du ci tit du ci tàbbi ci lu haram ndax xam na ne lu ko yalla wërsegal faaw mu jot ci ay jëfëm itam du ko wër kenn di ko kenn xam na ne lu mu jëfut du ko am xam na ni itam borom bi tabaraku taala lu mu wéet wéet wéet borom ba ngi koy gis borom ba gi xam ay mbiram mu am kersa ci ni ngay amee kersa ci nit ñi gis la ngay def ay ñaawteef kersa gu ko raw nga wara am ci sa borom di la gis ngay def ñawteef mu ne bima ma na dee bi may xaar lepp lu may def ci aduna rek dama koy wajal muy ab yobbal bo na ci man dajek sama borom dom adama su xëree lool ci lepp lu bané xam dem rek mu bëgg ko faj ak nu mu ko mëna faj ku mel nonu tabbi ci lu haram tabbi ci ñaawteef daf koy yomb lool ko dafa xër ci alal lool ak nu mu ko mëna amé koku tabbi ci lu haram wala sacc wala faggu wiin faggu xaraam di jëfandikoo riba di jëfandikoo carte di jëfandikoo ger ngir rek lu ko mën a may alal rek loolu daf ko yomb lool doomu aadama bi su xëree lool ci ak pal bëgg a falu bëgg a jiitu loolu tàbbi ci ak tooñ ku muy tooñ nit ñi daf koy yomb lool moo tax yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne ñaari till yu xiif yu ñu xiifal fanaanal leen ci ak gétt lañu fa yàq li xerub nit ki ci alal ak daraja ak teranga di yak ci ci li yooyu duñ ko yak ci gettu gog ne ko kon xer ci alal bam upp ak xer ci daraja bëgg fess fés bëgg a bëgg siiw su dal nit ki ni muy yàqe diineem moo raw li till yooyu di yak ci gettu googee gi faral adama alayhi salam mo njëkk moy suñu borom tabaraka taala ci bàkkaar bobu di xer xer la moy ndax boroom bi daf ne ko dëkkal yaag sa soxna aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna fa kulaa min haysu situma aljanaa ngoog lu leen fi neex rek lekk leen ba mu des leen rek wala taqrabaa haasihi sadara garab gi dong laa leen tere bu ngeen ko lekkee kat wax na leen la leen cay fekk fa fatakuuna min azalimin da ngeen di bokk ci ñu tooñ ànd ak xéewal yi nekk àdduna la muy bari lépp teewul iblis ñëw jax-jaxal leen ba tabbil leen ca la suñu borom tabaaraka wa tere fa akala minha fa akala minha lekk nañ ca garab gañ leen tere woon ñetteel ba ci bakkaar yu nëbb yooyu nga xam ne day nekk ci xol te borom bi wax ne nañ ko moytandiku mooy kiñaan kiñaan mooy cosaanu bépp tooñ gépp tooñ goo xam ne diggante dox na diggante nit ak morom ma rek la ko lal mooy kiñaan mooy bakkaar bi njëkk a moyee yàlla ci kaw suuf te ba léegi gépp tooñ gu dox diggante nit ak morom ma rek boo ko seetee kiñaan moo ko lal kii sàcc nit ki da koy iñaane lam yor rek bu ko ko yéene woon ni mu ko yéenee boppam kon dana ko fa bàyyi kii rey nit ki da ko yéene wutub dund bu yée bu ko yéene woon dund ni mu ko yéenee boppam kon du ko def kii xas nit ki dafa bëgg a yàqub deram su ko yéene woon bu rafet ni mu ko yéenee boppam kon du ko ko def moo tax borom am yaxsuduuna naasa ala ma aataahumullahu min fadli ma ndox dañuy iñaane nit ñi li leen yàlla defal ci baax iñaan mooy ak koo xam ne la am ci mbaax am ko ci xéewal te yow amoo ko nga ne kon na ko ñàkk doonte du ma ko am wala sax am nga ko waaye da jàpp ne yow rek yaa ko war a am waru ko amandoog yow lii nga am daal yow rek yaa ko fi war a am keneen ku ko am da koo war a ñàkk rawatina nag bu ko keneen amee te amoo ko nag foofu lay gën a méttee moo borom bi na ngeen muslu ci ayu ki iñaan wa min sharri xaasidin isa xasad borom bi ne آل إبراهيم جخنا لين الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كين جكا موي سنو بروم تبارك وتعالى تي بكار بوبو موي كين تا دومي ادم يا موي قابيل بغا خامين اسقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك موتا بروم ني واتلو عليهم نبا ابن ادم بالحق جانغالال نيت ني خبارو نياري دومي ادم يا بالالين دالون ني بانتا is qarraba qurbaanan boo ñu defee ak jaamu yàlla kenn ku nekk ci ñoom amul lu mu def di ko jaamu yàlla ñu nangul kenn ki te nanguluñu ko ca des bi tuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar mu daal de ko lu tax nga am lu ma amut ñu nangul la te ma nanguluñ ma kon nag la aqtula nag dama lay rek kooka ne ko innama yutaqabbalu llaahu min al muttaqin nangul giñ ma nangul du samay pexe waaye yàlla ki muy nangul mooy ko ragal yàlla ci sababu kiñaan itam ci la bokki yusuf ya sànnee won yusuf ca biir bënn ga muy teen ba ndax dañ la gis yusuf mi daal bu fi dundee dund noog noonu duñ tekki dara is qaalu la yusuf wa aqahu ahabbu ila abina minna wa nahnu uzba إن أبانا لفي fi مبين نون nun mbooloo lañu te yuusufa ak mbokkam mii mu bokkal ndey ñoom la suñu bay gën a bëgg kon nag bu fi bokkee nekk nun sunu mbaax du feeñ du ñu mën a tekki dara noona lañ ko fexee fexeele ba sànni ko ca teen ba waaye gis nga fa ko borom bi tabaraka wa taala mujjal ba mu ragalee yàlla innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudihu ajra al muhsinin bokki jullit yi kon nañu dëgg suñu digganteeg sunu bopp bu ñu nax suñu bopp kenn ku ne xam na boppam ku rëy nekk ci yow xam nga ko ku xër nekk ci yow xam nga ko ku kiñaan nekk ci yow xam nga ko doonte nit ñi mënuloo yow di ko gis waye borom bi neena mom na ngeen xamne mbollem lu nek ci yéen mom xam na ko waalamu an allaha yaalamu maa fi anfusikum fahdaru xam leen ne yàlla xam na li nek ci yéen kon nak moytu leen yàlla jox na ñep avertissement wa yuazzirukum allah nafsa so demé ci ali imran wa yuazzirukum allah nafsa yàlla mi ngi leen di moytuloo bopam moytu leen ma loolu yàlla wax moytu leen ma kon nak moytu ga nag du watandiku jëf yu feñ yi rek ci kanamu nit ñi ñu naan ko bax la te fekk na ci biir leneen moo fa nekk loolee dara umpu ci suñu borom tabaraka taala kon nañu dëgg suñu diggante ak suñu bopp rek la suñu bopp wattandikul ko lépp loo xam ne ay ñaawteef la lépp loo xam ne ay bàkkaar la lu feej ak lu nëbb ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu laabalal nu suñuy xol ba dara ci ay bàkkaar du fa nekk feesal ko dell ak leer feesal ko dell ak xikma feesal ko dell ak njub feesal ko dell ak yërmande وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين